jërëjëf sëñ Cheikh Mouhamadou Lamine xam nga euh, tagg ci Serigne Touba. Mm-hmm. yi mu doon tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. niñ ko njëkk a junjee dafa làmboo yu bare bare bare bare am na loolu sax buñ ci duggee day gën a gudd borom xam-xam yi nga xam ne ñooy jàngale wàllu way mm-hmm. ak li ci aju am na ñoo xam ni dañuy jàpp ne tagg bu dee ku fi jóge loolu duñ ko tuddee madax mhm. rasa lañ rasa lañ ko tuddee mhm. mooy mar li ñuy wax marsiya mhm. waaye rasulullah sallallahu alayhi wasallam sëñ Tuubaa daa jàpp ne dafay jógewul <laughs> jëm moom rek ju sell ja ah, moom lañ denc ca Madina waaye ruu xam ko sell ga mi ngi am xudóor bu mat sëkk teewaay bu mat sëkk ci àdduna sépp moo tax lii muy mu muy muy wax ci moom mu tuddee ko mataxu ñaareel ba itam yëmul rek ci wax melo yonente bi mhm. ak i jikkoom mhm. waaye jëmmi yonente bi itam ni ngi ko waxee léegi da koy da koy da koy da koy misaal mhm. di ko melal ba nga mel ne yaa ngi jàlloog rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam loolu nag boo ci dollee jàngale gi muy jàngale diine itam ci biir tagg yi muy tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne xasiré xam-xam yi boo ko boo ko tege woon ne jël xasiré tagg yi rek da nga ci mën a xamee mbooleem diine ak siira yonente bi sallallahu alayhi wa ak xew-xew yi am ci dundu yonente bi ak lu baree bari loo xam ni mhm. loo xam ni loolu nag boo ci dollee nag lim ci def li mu takk mhm. diiwaan yi nga xam ne moo am noonu liñ ci xam rek nga xam ne eh, ba jamono ji xamuñu ku bind lu toll noonu ci rasulullah sallallahu alayhi wa moo tax mu sañ wax ne raditu anil baaqi wa an xayri xalqihi wa fi madhihi jaawastu kaaban wa xassaana ña doon tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci jamono jooju lañ jot a tagg mhm. nga xam ne dajale nañ ko ci ay diwaan sëñ bi li mu def ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam weesu na ñoom ñëpp la def ci ay ay ay ay tagg mhm. jëmmi tagg yonent bi itam am na yeneen i fànn mhm. masalan léeg-léeg nga gis mu wax ne wajjahtu madaxi li jamilin abhaja wa dikru fadlihi gada li manhaja tudd nga nee li rasulullah sallallahu alayhi wasallam ak di ko fàttali ak di ko wax ak di ko euh, way mm-hmm. nee na loolu mën xëj la ci man maanaam yoon la anam la ci anam gi nga xam ne ci lay jaare mm-hmm. ngir jàng diine ak jàngale ko ak tasaare ko mm-hmm. léegi sax mu wax ne ñooy samay ngànnaay maanaam tagg yonente bi jeesi la joo xam ne da ci xeex ak noonu yàlla yi oh. wax ne lillahi hamdi wa lil maahi nabi midahi walhamdu wal madhu asiyaafi wa armaahi nee na tagg gi mu tagg yonente bi ñooy samay jees yi ñooy samay xeej yi nga xam ne ñoom lay xeex ak noonu yàlla yi am na feneen fu wax sax ne madaxtu rasulallahi madaxan mudammiran adu bi tagg yi may tagg yonte bi mooy hmm. day màbb noonu yàlla yi hmm. da leen di mabb am na feneen fu wax ne zintu makatiba tadu taduumu raasida kulla muaadin hmm. nga xam ne dañuy fuglu noonu yàlla yi di leen indi di jafe-jafe kon tagg dafa am ay ay ay wàll ak ay fànn ak ay wet yu baree bari ci biir mhm. waxi sëriñ bi mhm. ak biir mbindum sëriñ bi ni ma ko waxee léegi itam sëriñ bi mhm. dana wax melo yonente bi waaye léegi itam mu mu mu mu mu wax ci jëmmi yonente bi melal na ko ne jazbul xulóob bi nga xam ne comme janloog rasulullah sallallahu alayhi wasallam gis nañ léeg-léeg moom bayit yoo xam ne sax day boole ñaar yëpp ñaar ñaar yëpp mooy wax ay jikkoom ak waxi meloom ak wax wax nag jikkoom mooy waxuwa akmalul wara xalqan wa xulqan dëhara wal mithlu qattu lam yura walan yura fi chiyami mhm. xam ne ci ci ni te loolu mooy li muy ni muy doxee rek mhm. mooy ci melo melo yi jëmm ji ak mhm. melo yi xol yi ak jikkoy biiram loolu mën mën naa feeñ itam ci li wax ne mu jamilul muhayya ma xija mabarrun maazun li kulli tarix jamilu mu xayya nga xam ne melal na xarkanam bu yonente bi sallallahu alayhi xarkanam bu bu rafet bu taaru boo xam ne lépp taar da daje waaye zakiyul xija xel mu ñaw yitam la amee woon moom rasulullah sallallahu alayhi wa ma barrun maadun li kulli tarix nga xam ne ak mbaax léppi mbaax it da ko dajalewoon woon gis nga xam ne bayit woo boo seetloo boole na wet yooyu gis nga léeg ci misaal masalan jëmmi eh, melo yonent bi ka tahiju wal wajhu maaxil xumami nga xam ne jëmmi xar kanam yonent bi sallallahu alayhi mboolem melo ya ca ne yëpp sëñ bi dajale na ko ci bayit yooyu wax eh, lexam ba nga xam dafa mel ne ndoxum wurus lañ ca sotti ci leer ga ak euh, nga xam ne yonente bi xar kanam ba du xar kanam bu bu doon xar kanam bu kuppandalu bu jekk mm-hmm. boo xam ne bind ba ko suñ borom bind dafa wuuteeg ñëpp ci bind mm-hmm. sëñ bi sax am na fu mu ko melale boo xam ne wax ne mm-hmm. jëmmi xeeti day mel nga xam day mel ne xeeti couleur yu yi ci àdduna bépp daje ci moom mun a wax ne daa xonq mun a wax ne daa weex mun a wax ne daa xeereer ndax asmaru wa asmar asmaru xam nga wax na ko asmaru mm-hmm. mooy nii africain yi mel kon xeeti melo yi melo melo yi ci àdduna si yëpp la yoon la suñu borom dajale le woon mm-hmm. yonente bi sallallahu alayhi wasallam jox ko wenn melo woo xam ni kenn la woon koo xam ni amul amulum kem ci ci ci ci ci wet yooyu mm-hmm. loolu kon ci biir tagg yonente bi sallallahu alayhi wasallam eh, gi sëñ bi doon tagg yooyu yëpp mi ngi ci boole kook nag làkk bi nga xam ne nag ni ma ko waxoon léegi da koo jekku di ci wax wax joo xam ni. ña ko nàmpoon sax lott nañ ci ci ci ci ci wax ko. boole kook itam ni liñ doon junj léegi. mooy sëñ bi dafa bo tagg yonente bi. Mhm. da ko jàppe woon bor boo xam ni da ko gàll boppam. Mhm. damintu lil muxtaari kulla aami daynal madaayix ak mu ne damaa ameel yonente bi borub di war koo tagg. Mhm. moo tax moo gis moo tax loolu mooy moo jur xasida yu bari yi nga gis ni ci biir itam. waxam xam ngay gis ne maanaam tagg yonente bi sëñ bi da ko jox beneen beneen mu mhm. gën a kawe ndax léeg mu wax ne mboolem sama daraja mhm. ji ma am ci tagg rasulullahi laa ko am léeg-léeg sax ne jëmmi tagg wi ci moom mooy daraja ci man mhm. ganimati taxsiinu madxil mujtaba duuna ittixaadi fiddatan wa dahaba ak li mu wax ni madxu rasulillahi sallallahu alayhi bil ali wa man qafaahu hmm. martabati wa zinati hmm. wa jaahi bihi arumu maa ladal ilaahi ah, tagg yu ñu tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy sama daraja hmm. di sama waajtaay di sama di di loo xam ne ci lay sàkkoo la ne fa sun borom tabaaraka wa taala loolu yi da nga ne kon jox na ko eh, beneen wàccuwaay bu gën a kawe léeg-léeg sax mu wax ne man jenn wax rek laa am muy tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam madaxu nabiyil muntaqa kalaami wa fil ida anka min al kilaami mooy samay wax waaye wax jii ma ciy wax nag moo raw jam-jami xol ci biir noonu noo noo noonu xam ne lu moo sax ni ma ko waxee mu ne mooy mën hëjam waaye léeg mu ne mooy mazhabam mm-hmm. mazhabam ngir mi nga xam ne moom la topp ci diine mooy jaare ko ci tagg tagg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. man wax ne li xayri rabbi bin nabi lam azhabi mm-hmm. wal madxu saara daydani wa mazhabi mm-hmm. mooy sama aada maanaam ñooy sama aada waaye mooy sama mazhab itam léeg-léeg mu àgg ci wax ne ñooy sama mooy sama sariya maanaam tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sariya la ci man yoo xam ni faw ma di ko di ko topp faw ma di ci jaar faw ma di ci nekk mhm. aslamtu nafsi li rabbin jalla an waladin ma alladi matahu shar'i wa aadaati <laughs> matxu nabiyil mustafa sulooki mhm. maanaam muy sóobu mhm. yoon wa jëm ci yàlla loolu ci matxu rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci la ci la laa koy defee léeg-léeg sax mu wax yàlla ci boppam la ci man madixuka yaa xayral baraya ibadatun yanaalu bihi l fawza alladi daama yamdaxu léeg-léeg aljana la ci man moom tag nekk di tagg yonente bi ak di wax ci moom loolu aljana la ci man mhm. aljana yi àdduna la ci man di wax ne eh, madxuka yaa xayral baraya mulki summa salaati alayka milki ak na wax ne madxu rasulillahi saara mulki wa jannati mhm. wa junnati wa fulki mooy mhm. gaal gi nga xam ne itam ci lay jaare ci biir eh, géejug àdduna gi ngir wuti suñu borom tabaraka wa taala kon moo tax nag léeg-léeg ñu gis mu wax ne jëmmi mën a toog di tagg yonente bi di tudd turam woowee mhm. moo xam da ngay julli ci moom wala ngay tagg ci wala nga koy tagg mhm. neen lool du lu woyof bu ko kenn woyofal neen loolu tawfeexi suñu borom la neen mhm. def gii ma koy def <laughs> xéewaluk suñu borom la gu ma suñu borom xéewale tawfeex la joo xam ni moom ci mbaaxam kese la ma ko defalee gis nga waxin woowu nga xam ne nga wax ne dicru bi mustafa bil madhi aw bi salaati qismati wa ribxi dalika fadlullahi yuutihi li man yashaau min ibaadihi xayra min dalika lam ajidhu bi taxayuli mhm. loolu ay pexe mayuma ko bal nit bal niltuhu bi maxdi taxsiisil ali mhm. dalika nicmatu ilahiya alkarim wa innani an shukriha lastu arim daka mhm. alladi tayaba nafsiya kama aqarra ayni wa shakartu nicma boole kook nag sëriñ bi bu ma saa di tagg rasulullah da koy booleeg teggin yu mat sëkk ak pëstéef ak pas-pas akook sell akook mat ci la ko daa defee wax ne tafiqtu unaadil Moustapha zaata addubi waaw nga xam ne teggin yu mat sëkk